tàmbalee ko ci préfet bu Mbacké ak sous-préfet bu Ndam mboolem service service yi nekk ci région bi yëpp ñëwoon ngir waajal bis bu tedd bii ñu ko baaxoo defee ak kon ci ndigalum Cheikh Mouhamadou Mountakha li nga xam ne mooy borom liggéey bi te ñu teew ànd ak mboolem jabaru Serigne Touba bi nga xam ne. yàlla def na lu ma xam naa duñ ma tudd ñëpp ndax jataay bi ni bindoo gàtt na ak xam ngeen ci jamono toll moo tax ñu wàññi délégation bi mu daa toll waaye sëriñ Ahmadou Bari ibnu Cheikh Mahoudou Fadal ak sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ ak Cheikh Mouhamadou Bachir Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Moustapha Bachir ak Serigne Cheikh Naa Mbacké moom Serigne Cheikh Tane di xarit di sëtu borom Sàmm ak Serigne Cheikh Bara Mbacké Abdoul Ahad ak mboolem mbokk yi nga xamante ne xam naa boo limee rek da ngay fàtte ci comité organisation bi itam tànn nañ ci dama juróomi commission ñu teew teewaale ñu ci des ndax xataayu saal kon euh, ginnaaw boo xam ne sëriñ Ousmane wax na bu ñu ko tuddee tudd sëriñ Abdou Lahad tudd sëriñ Abou Mbacké ak boole ñu ci des nga xam ne Abdou xam leen xew moo tax mënta yow sëriñ Sidi Mbacké mu sëriñ Abdou Aziz ñu topp ci moom ñëw na teewal ko alxaaji Njaay ak mboolem ñu ci gis ñëpp kon wax ji du gudd fi ñu rek mooy ñaanal suñu mag bu baax ji ñàkk tey Serigne Salim Mbacké Cheikh Abdoul Ahad doonoon jàmbaar lool ci liggéey Serigne Touba ginnaaw bu Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Ahad Mbacké jure bu nga xam ku ne xam ne jël na ca waajuram ay jikko jàmbaar gi ak fit ak fulla ji te loolu ba léegi mu def ko kon ñu ñaan suñu doom ko lee leeral station ci barkeem di jaale itam gouverneur wooy juróom yi ñàkk moom itam yàlla def waaye xataay bi tax ñu mujjoon fu yónnee waaye comme yàlla def na ñu agsi ba ci moom ñu ko koy jaale ñaan moom itam suñu doom jéggal ko te yërëm ko bi ñuy waajal nag day bis boo xam ne ndigalul Sëriñ Tuuba la mooy màggal di bis bi gën a rëy ci ñoom ñu yaakaar Sëriñ Tuuba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké wax ne mooy suñu fête d'indépendance noonu la ko daa waxee kon bis bii lépp lu ñu am rek ci lañ ko amee bis bu rëy ñëw Sëriñ Tuuba santaane woon ko digle ko ne na ko ci ñëpp sant la yàlla suñu borom ci bis bii yàlla def nag ci ñaanam nga ak liggéey bu tëdd ba màggal gi dem ba agsi fii ndax bisu ak pay la ndax na mu ko digle woon daale ci dem ci dagge taalibe yëpp nag seenu xeet tax màggal gi àgg fii tey ba waxatuma la lañ ci yaakaar te mooy lépp sol te mooy ko tax a jóg di wàllu ruux lañ ci yaakaar ëllëg suñ diggee yàlla lañ ci yaakaar ëllëg suñ diggee Sëñ Tuubaa ci pay waaye ci wàllu àdduna mu dem ba nekk li ëpp doole ci waxuma réew ci Afrique wala doole sax yi ëpp doole ci àdduna ma ne soog jaay bare muy dugal lu baree bari itam ci wàll koom-koom muy loo xam ne réew mépp lay jaay kon li ngeen tudd tey relancement économique Màggal Tuubaa moo moo ci jiitu ndax mën naa ne li ëpp ci nit ñi wala société yu mag yi bu ñu amee luñ bëgg a jaay dañ koy xaare màggal gi ngir barkeelu bis bi kon nag yàlla def Sëriñ Mouhamadou Mountakha duñ ci sañ a benn jéego ci lu dul ndigalam ab taalibe bi itam du laaj ndigal day toog bañ jox ko. kon ñun li ñu war a mooy toog di xaar lu sëriñ bi lu sëriñ bi santaane ne jox naa leen digal ngeen wéyal liggéeyu mag liggéeyu li ngeen ko daa defee ci lañ door a tàmbali ndaje yi nag di ko def liñ ci war a def am na ci ndaje moo xam ne jàll na sëriñ Ousmane moo ko jiitoon ni mu ko baaxoo defe ci ànd ko préfet bu Mbacké ñu def ko nañ ko nañ ko waroon a defee séentu ci it lañ ci daa séentu te jii itam gouverneur taxawalaat ko ci ndigalu kilifaam yi nga xam ne ñoom dafi teewal tàmbalee ko ci ministre de l'intérieur moom bi nga xam ne moom ko jox ndigal mu ko moom itam mu def ko nag ci ndigalu président bi nga xam ne ci ndigalam la ko defee kon ñoom ñu ngi leen di nuyu lu rafetlu jotaay bi itam ñu ngi doxee di ñaan itam ñu àgg ca màgg ga jàmm te suñu borom dimbali ñu mboolem li ñuy tiit ak li ñuy ragal yàlla mosuñu ci. te suñu xel war ca dem bu baax a baax war a daru xel yi mooy eh, yaakaar ci ndimbalu yàlla waaye yaakaar ci eh, positif ak ndimbalu Sëriñ Tuubaa ngir xam ne sëriñ bi kat lépp loo ko sëf te defu ko positif ak ngëm daan la fekk si ci loolu kon ñuy ñaan ñu àgg ca te lii nga xam ne moom la adduna sépp ragal muy mbas mi nga xam ne suñ borom ci coobare moo xam li tax mu def ko fi yàlla jeexal ko wéradi gi nag xam ngeen ne gàllankoor na lu bare bare ci àdduna ba tax na sax màggal gi bi ñu koy waaj lépp loo xam ne xam nañ ne mën na andi lenn ci gàllankoor ngir sàmmoonteeg fi àdduna toll ndax dañoo nekk ci biirum réew seq kook ñu bokk réew nekk ci biir adduna yi seq ko waa àdduna kon mënuñoo bett ko ni ko Cheikh Maodo Moutakha di waxee looloo waral eh, lenn ci ndaje yi nga xam ne sax daanañ ko def te xam ne mën naa jur fitna wala ay jàngoor bi ci juddoo yooyu sax wàññi nañ ko mooy lu mel ne colloque international bi nga xam ne par ñeenti at lañ ko daan def jii yàlla def na ngir xam fi adduna toll tax ñu soppi ko def ko ci xarle yi ngeen di tudde léegi visio conférence nga xam ne ñii dañu nekk Sénégal ñu nekk Arabie Saoudite ñee nekk Iran ñee nekk euh, Irak ba Syrie ak réew yu bari ba Amérique France am na ñoo xam ne conférence noonu lañ ko doxale kenn ku ci ne fa nga nekk di ko dund ba mel ne ni ñu ko daan defee ndax màggal gi itam xam nañ fi jamono toll waaye nag waruñ ca àggitam te lañ ca daa jëriñoo di manqué ndax yaar yëpp mën na mënees na ko sàmmante kon Cheikh Mouhamadou Mountakha ku ko xam ku ne xam ne na ko kilifa bu njëkk yaa daa defee rek ca tànk yooyu la jaar moom bi yore di gi xewee la Serigne Touba waxoon ca peste la waxoon mbindeefum yàlla la yàlla mi ko fa wàcce waxtu ko jeexale mu jeex kon képp ku gëm yàlla yëpp dangaa war a tënku ci loolu xam ne suñu boroom moo ko doxale noonu ndax moom lu fa wàcce moo xam ne tax mu wàcce ko fi ndax yàlla kenn du ko laaj lu tax la ko ca tam la ci jëkk mooy ñaan loolu tam def na ko waxtu wu nekk mag ca di ko santaane yépp ndax ab euh, ab jullit addu'a silaaxul mu'min ginnaaw bu loolu jàll itam li nga xam ne adduna da ko indi te lislaam santaane ko ndax ne ko sëriñ bi waxee rek wala tulqu bi aydikum loolu lislaam bu ko santaane kon ab jullitu xaru kon sëriñ bi lépp lu mu def da koy natt ba mu ko ne lii sariya moo ko ci sant ci diggam te du àdduna waaye nag suñ digg ak borom moom mooy jiitu ndax loolu bi kon sëriñ bi loolu la jiital waaye xam ne itam wàllu àdduna bi itam suñ boroom moo ko indi ndax dafa indi kilifa diine indi kilifa adduna kon li nga xam ne nguuru Sénégal tëral na ko te ànd ko waa adduna ñëpp maase ji loolu itam sëriñ bi ni ko docteur yi waxee mu wàcc ci ñoom sëriñ bi dafa santaane ne ñëpp jëfe na yëmu ca ndax yëmu ci waxe kese waaye da ko booleeg ay jëf jëf ji mooy ba wéradi gi tàmbali lay yëkkati lam ci man ngeen xam ne lu jëm ci Sénégal gépp état bi ñoo ñooy seen njiit mu jël ko teg ko ci loxol ki jiit réew bi ngeen xam ne la Cheikh Mahamadou Fadil Mbacké daa wax ne doom bu sax ci sot la bokk loolu ci jublu ngir bëgg wane ci yoon ngir ñëpp roy ko ci xam ne lii kat ñëpp war a boole seeni doole ak seeni pexe ngir yàlla suñu borom jële ko fi yëmu ci itam tàmbalee ko ci Touba mboolem lu ko waroon ci ay liba ci dëkk bi li ko wër yëpp mu yëkkati alali boppam tasaare ko sedd ko sant ko taalibe Sëriñ Touba yi ak daayira yi yëpp ak seex si ñëpp marché ci kenn ku ci ne ña nga tane nga dimbalee ni ko alxuraan santaane li yunfiq su saati min saatihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimmaa aataahu Allah kon sëriñ bi ko xam responsabilité bi la kon lépp lu ko waroon ci wér-gu-gi gis ngeen itam ba nëgë ni li xew lépp itam gis ngeen jumaay Tuubaa ba nëgë ni li mu santaane bu ñu julli nañu soriante ak mboolem jàkke yi nga xam ne aju na ci moom kon moom pour que ëpp responsabilité ci réew néew fi kon bu soñoon taalib yi ak jullit yi ak ñi dëkk ci réew mi ñëpp wér ba sooy ñëpp nekk ci jàmm ndax seen jàmm ak seenu biir mooy jàmmoom moo tax sëriñ bi doogu gi mu ci am ak lim ci santaane sëriñ bi bëggut feebar bi di law ci adduna si kon Cheikh Mouhamadou Mountakha bëggut lenn luy indi feebar bi law moo tax waxtu wu ne muy fàttali nit ñi di leen wattandiku lépp loo xam ne mën naa indi jàngoro ji wàllaate kon loolu itam na ko ñëpp xamee noonu yëmu ci it ndax dañuy wax ne sunna mooy lépp loo xam ne rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wax na ko wala mu jëf ko wala ñu jëf ko ci kanamam te weddi ko sëriñ bi nag yëmu ci wax waaye dafa wax ñëpp di dégg yëmu ca mu jëf ñëpp gis ndax ko ne xam na ne bu ngeen gisee mu jël masque di ko takk lépp lu mu ci juru mooy wan nit ñi aw yoon ak wan leen fi ñu war a jaar te loolu itam yaakaar naa war naa am jeexe ci ñëpp xam ne ndegam sëriñ bi nga xam ne mooy suñu kilifa. moo bët moo moo ko jël di ko jëfandikoo kon aw yoon la ci képp ko xam ne war nga ko maa def nga def ko kon ni mu ko defee ni la ko sant ñëpp képp ko xam ne mën ngaa jël masque yi di ko takk ñi xam ne nag xëy na am nañ ci gàllankoor ndax ñoo xam la tax nañ jël kaala di ko muuru ndax laa darara wala dirara doo lool te doo lool keneen loolu kon sëriñ bi mu ñu ci soñ ñëpp di ci soñ soñ bokkitaal bi nga xam ne xam ne màggal gi bu soñoon ñëpp dañ fi indaale ak wér te bu ñu fi jugee itam euh, ak wér toppale kon loolu itam li nga xam ne euh, médecin yi ak docteur yi santaan nañ ko xool ba xam ne lii mooy lii waral loolu na ci ñëpp maase ci góor góorgóorlu ji wattandiku ci ba ci biir loolu sax waa daayira Muqaddamatul Xidma incha allah ci biir jumaa ji nga xam ne xam ngeen mooy barab bi ëpp fu nit ñi daje di fa siyaare ñoom seen yitte seen xariñ incha allah ñoom taxaw nañ ci ba xalaat ci bu baax ba fas yéene tërale ko noo xam ne ñëpp danañ siyaare te danañ sàmmante li nga xam ne àdduna indi na ko waxtu wi laaj ko kon nag ci biir loolu rek loolu mooy soññ yi nga xam ne ndax màggal yi dafa dikk ci contexte boo xam ne suñ borom a ko tudd noonu waaye rek ñu ngi rafet njort rek ci ne bu màggal gi jàllee rek. suñ borom mën na fi doxe lépp tàggoo fi dem ba faaw kon dañ koy ñaan te ci ñaan ndimbalam ak yërmaandem di sant nag président Macky sàll ci cant gi ci ndigalu Cheikh Mahamadou Mountakha démb la ma waxaat ne naa ko jot la cant cant gi li ko waral mooy bi màggali Tuubaa yi jàllee daaw ba bañ gàmm ba mat ñaar fukki fan sëriñ bi dama yónni ci moom yaari mbir benn bi mooy wàllu ndoxum Tuuba ndax daaw màggal gi ndox mi dafa manqué te xam ngeen ne màggal gi at mi jot nit ñi dañuy yokk kon waris na ci def yitte ngir xool ni ñuy fexe ba déwén na mu demee woon bañ mu bañ ne di ko ba ca des mooy ku ne xam na ne màggal gi dugg na ci biir nawet mbedd Tuuba yi bari na ci loo xam ne état bi defoon na ci fukki milliards. waaye Touba dafa rëy la koy defar assainissement dana mat téeméeri bi laa wala mu ëpp kon da ngay tàmbalee fenn di dem sëriñ bi yónni ma ca moom ñaar yooyu mu bokk ak yeneen yitte waaye yooyu mooy li ci gënoon a jege màgg bi ba mu ko ko waxee itam mu def ci yitte yitte ji mooy fa saasa la daal di joxe ay ndigal ndigal yi résultat bi ñëw na tey mooy ñeenti forage yoo xam ne incha allah bu àndee doolu suñu borom balaa màggal gi. dana àgg ak yeneen i satuloo yoo xam ne ñu ngi koy defaraat boole ci it juróom fukki kilomètre ak juróom ci réseau bu bees boo xam ne dana dugg ci biir ndox mi ngir loolu gëm nañ ne dana soppi lu bari ci ndox mi waaye ci biir wax ji nag moo xamal ma ne Touba ndox mi dafa am li ñuy wax plan directeur ñoo xam réseau bi ndax li cëpp dafa yàqu kon danaa wut benn cabinet mu def étude xool réseau bi ñu xool ni ñuy saafara ndoxum Touba ak ndox mu neex man fi ñëw ak ndox mi bañ a màggati loolu itam dox na ci jéegu ba wax nañ ma ne ki nga xam ne mooy ba ñu jox liggéey bi ci weer septembre bi naa tàmbali liggéeyam loolu itam kon def na ci te def ci pëstéef def ci taxawaay kon sëriñ bi ko ci sant ko ci gërëm ba ca des it mooy wàllu assainissement bi assainissement bi itam assainissement bi jëm ci wàllu ndoxum taw bi fa saasa it la jox ministère bi ko yor ndigal ñoom itam def nañ ca lañ ca war def ba jël bisab yoon 3 milliards boo xam ne ci ndox ci assainissement Touba la jëm bokkut ak assainissement bu jëm ci fosse yi ñu doon wax ci fan ya weesu waaye bii ci wàllu taw bi la jëm def na itam ñoom lañ ca waroon def def nañ ko ca waroon naa tàmbali sax laata màggal gi waaye bi mbas mi xewee nag mu am ak yeexte ndax xam ngeen ne loolu àdduna sépp la loolu itam ñu nangul leen ko waaye incha allah bu màgg bi jàllee ñoom danañ ko danañ ci jublu ngir àggali liggéey boobu te loolu itam bu àggee daa doon loo xam daa loolu nag bokkut ak tëli yeneen ci des ak làmp yi nga xam ne Sénégal gépp loo ko def waaye beral na ci Touba pour ñaari milliards loolu itam sëriñ bi ko sant wax di ko ndox mi itam def na ci ñaari milliards ak ñaar ak téeméeri million kon loolu jéego bu rëy kon sëriñ bi koy sant bu baax di gërëm ndax euh, sëriñ Abdoul Ahad Mbacké daa ne du ma sant ku ma deful dara kon lépp loo xam ne sëriñ bi gis naa manqué ci dëkk bi ndegam xam na ne bu waxee moom mu dégg ko te lu ca man dana ko jëlee moo tax lu mu ci yëg xam ne manqué na wala war na koo def sëriñ bi dana ko waxal boppam bu ko waxee itam fa sansa la mu ca man dana ko jëlee ndax man ñi ne ci diggante bi xam naa ci dara kon ñu sant ñëpp diggante ñëpp. di ñaan màggal gi nga xam ne ndigalu Serigne Touba ñu àgg ca jàmm génn ca jàmm day ca tawféex day ca ndimbal te ñëpp it nañ ci ànd ak dalum xel ànd ci rafet jot ngir xam ne Serigne Touba kat euh, mbiram suñ borom fegal ne ko ci aafatu ak kaddu kon suñu xel wala ca dal yàqin sax lañ ci war a am wasalaamaaleykum wa rahmatullahi